avant toute chose ñu ngi jaale seen ay waajur maman yi papa yi yi nga xam ni yépp gis nañ leen démb ñu def ay témoignage ñu ngi leen di mastaw ñu ngi leen di mastaw parce que kenn amul kàddu yu ëpp loolu ñu ngi leen di mastaw ñu ngi bokk ak yéen naqar bi xam leen ni seen xol yi metti na de mais xam leen ni euh, ñun tamit bokk nañu ak yéen naqar bi xam leen ni wéetu leen ci seen naqar yéen jur seen ay doom mais sénégalaises yi ak sénégalais yi nga xam ne nekkuñu ci seen wet bokk nañu ak yéen naqar bi suñ ko mënoon jënd ci seen xol dinañ ko def on partage avec vous cette douleur man particulièrement sama trip sax ñoo doon metti c'est comme si euh, li ma ñàkk ci suma biir laa ko jële avant ma ci ma ci ma ciy gën a sore dinaa dinaa leen def confidence li tax euh, mu mu metti ma li tax mu gën ma metti à ce point là c'est parce que dama dund lu mel nii ak suma grand frère suma taawu yaay bu nga xam ni tey génn na àdduna maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana di ñaan ngeen ñaanal ko ko sama mag boobu jabaram dafa accouché woon hôpital Abbas ndaw dooma matul ñu téye ko ci crèche bi biñ ko téye ci crèche bi muy xëy di ko nàmpal bu ñëwee day nàmpal ñibbi këram ba mu am semaine yàlla ñu tudd xale bi tuddee ko sama mag bu sore ci man muy continuer di xëy di nàmpal doomam ñu xëy bis mu ñëw di nàmpal doomam ñu nekk sa doom wàññeeku na ndax lan ndax négligence ndax xale bi demoon na ba tane ci guddi mu am urgence xale boo xam dafa soxla couveuse ñu génnee xale bi jàpp ni xale bi dëgër na te mën na sauver ñu génnee ko wala sax am na ñu naan dafa am ku joxe xaalis ñu génnee xale bi rocc ko jox tugal beneen xale ci palaasu xale boobu bi ñu xëyee noonu ma ñëwee di jël si di xool xale bi ànd ak yaayam lan wax nañu xale bi génn na àdduna noonu la ñu jëlee xale bi ñu dem ñu ni wuti leen carton ñu yëkkati xale bi yëkkati ko yët ko jox ñu ko ci carton jox ñu ko ci carton man mii di jigéen ma ànd ak sama mag boobu tudd abu Aboubacry jël xale bi yóbbu ko yoof gii utal ko fuñ ko denc denc ko mu metti lool démb biñ ma waxee xale yi nekk ci couveuse bi génn àdduna sama xel dafa dellu siwaat ci xale boobu noonu mu génne àdduna ngeen baal ma xalaataat suma mag boobu nga xam ne tey mu ngi àllaaxira xalaataat suma suma suma suma doom jooju nga xamante ne tey mënoon naa dund su taxawaay bu ci mat amoon mu ma yëg a yëg métti boobu ne ci man te man su ko ma ko jur de mais su ma xalaatee métit boobu ne ci man war a xalaat métit bi ne ci parent yi nga xamante ne ñoo ñàkk seen baqan ñoo ñàkk seen ay doom métti na torop ba fu métti mën a yem ku nekk mën naa génn àdduna loolu am na ku nekk mën naa génn àdduna wante ay xale tout tànk yu dooru judd te nag li ma gën a métti xam nga mooy lan mooy nit dafay faatu ci anam yoo xamante ne dafa jaar ci loxo doomu aadama ñu naan la ndogalu yàlla la Sénégal mooy dëkk boo xamante ne ñoo gën a yab yàlla ci àdduna Sénégal mooy dëkk boo xamante ne dañu ñeme di làqatu ci ay ngëm-ngëm nit ñi nag dañoo doylu Sénégalais dafa gëm yàlla loolu dëgg la Sénégalais lu ko dal lu muy wax leneen lu muy wax leneen lu dul ndogalu yàlla la lu muy wax leneen ndog ki boo xam ni kii mooy responsable bi kooku mënul ci moom dara kooku dafay daw responsabilité am kooku dara du ko ci fekk donc soo gisee sénégalais bu ko dara dalee ki nga xam ne moo ñàkk mu ne ndogalu yàlla la parce que ci yàlla la mën a jafandiku ci yàlla la mën a téye parce que yàlla do yàlla yàlla képp yàlla kese yàlla kese yàlla dong moo fi nekk koo xamante ne mën nga wékku ci moom sa naqar wàññeeku. parce que moom au minimum boo wékkoo ci moom mu oyofal sa xol mu nangul la ko mais nag dañuy waxante dëgg nit ñi mënuñu di dee comme sax comme xaj sax wala muus sax bu doon dee war na dee ak en toute dignité war na dee ci yenn conditions yi à plus forte raison nit ak baqanam nit ak baqanam te quand on demande des comptes à des bu ñu demander des responsabilités ay nit taxaw naan ñu da ngeen di politiser bàyyi leen di politiser lii lan la ñu fi war a politiser ah dëkk bi daal nañ la dénk yow hôpital na nga nekk na nga nekk agent de santé na nga nekk ministre chargé de de la santé toujours yu mel nii di am daaw Linguère ay nit lakk barki démb Louga nit ñu faat ko tey ay xale yu ndaw xale yoo xamante ne mënuñu dara ñàkk mën dara moo tax seen ay yaay jur leen yëkkati leen dëkk leen nit parce que mënuñu leen teg ci seen wet parce que pour ñu sauver leen la nit ñooñu kenn du demande responsabilité bàyyi leen naafeq dëkk bi naafeq du ko defar ñun ay citoyen lañu comme yéen ay jigéen lañu ay doomu aadama lañu comme yéen li ñu wute ak yéen moo yéen dangeen ngeen par parparloo ba yàqu dangeen ngeen a sexlu ne ci seen génn lu seen gémmiñ toog ci benn benn donkaasi wala toog ci dara ragal koo ñàkk looloo tax ngeen tëj seen bët yi tëj seen gémmiñ gi di nàppeq ku wax ni responsabilité waruñu ko laaj nàppeq nga nàppeq nga bu bon a bon nga ku taxaw ngeen ne bu fekkente ne ndogalu yàlla lu am ci dëkk bi ngeen na ndogalu yàlla la kon dëkk bi bu kenn politikati dëkk bi bu fi kenn ñaxtooti bu fi kenn xeexati bu fi kenn xëy sax di liggéey ku ne xëyal tëdd ci sa lal tàllal say loxo dina ndogalu yàlla la yàlla moom moo la sàkk yàlla yàlla bay sa tool yàlla daf ñu sàkk ñu ñëpp kenn gënu fee gëm ñu yàlla bàyyi leen naafeq bàyyi leen naafeq dafa am ñu yàlla def ñuy faje am ñu yàlla def ñuy wut kaaraange am ku nekk ak li nga xamante ne loolu nga séddale sa bopp sunu borom bi obligé wul kenn mu dem liggéey ci santé obligé wul kenn mën a jox leen ma ministère de la santé jox ma 1000 milliards may gérer pendant ce temps là nga tal di dem ay sommet de Genève nga tal di lambar lambari ci àdduna bi ci leneen sa dara matul sa dara matul tey jii tey rustu na nit ñi di taxaw di demander ay ay di demande ay di exige di demander ay ay ay démission ñu ko am jom ñu dénk le ministère lu metti di ci am lu metti di ci amaat lu metti di ci amaat le minimum que tu peux faire le minimum je dis Diouf Sarr le minimum c'est de démissionner le minimum man waxuma waxu Macky Sall ndax Macky Sall moom moo jël priorité moo préféré moom jël dix-huit milliards def ko ci décoration corniche pendant que suñu hôpitaux amul ay extincteur moom moo préféré jël ay xaalis def ko ci BRT def ko ci train am na njëriñ mais pendant ce temps là amuñu plateau médicale bu baax kooku waxam sénégalais yi ñoo ko fal heure sénégalais dañ ko folli mais kii Macky Sall moo ko fal. Macky sàll moo ko war a li dëgg la mais moom itamit war na xam ni li ñu ko dénk boobu ba léegi yàlla ngi ci am lu mu ci teg boobu ba léegi ay manquement mu ngi ciy am boobu ba léegi ay jéeya mu ngi ciy am mu toog fi mu toog ne patt pataaral tey ngeen néewati waxati enquête jël directeur ba dàq. jël sage-femme yi nga xamante ne ñaari sage-femme ci hôpital pour garde guddi loolu ngeen wax loolu la ñi fa nekk wax loolu la ñi fa nekk wax avec ça ñu ne dëkk bi dañu koy defar lu am ñu bëgg ko nëpp nëppal lu am ñu bugg ko lijjanti waxee ko nii waxee ko nee yàlla mooy dogal wante yàlla moom moo leen defloo ngeen yëkkati ay tonni hôpital tegu leen fa lu mat kaaraange lan moo tax xale yooyu ñu tëj leen ana leen tëj responsabilité lan moo tax euh, amul ci biir hôpital ci biir salle de yooyu xale yi nekk loo nga xamante ne bu amee feu mu mu mu fay ko comme dans tous les hôpitaux ah ñun daal bëgg nañu nduroog les autres pays pour am ay train bëgg nañu nduroog les autres pays pour am ay corniche mais bëgguñu nduroog les autres pays pour am pour am au moins plateau médical bu correct bu décent il faut ngeen arrêter il faut ngeen arrêté dëkk bi nit ñi ñoo ko bokk fii ñaari sénégalais amuñu fi benn sénégalais moo fi am amul sénégalais bu far ak sénégalais bu farul devant la douleur ñu tous nu sommes concernés ku am loo sex ba munoo wax nga noppi nga noppi nga may nit ñi ñu génnee li nekk seen xool waaye lu ñu wax ngeen ne politique lu ñu wax ngeen ne da ngeen di politiser opposition bi lan lañu ci def kan la ñu dénk responsabilité est-ce que ñun la ñun lañu ñu dénk ministère de la santé ñun la ñu jox budget mille milliards ñun la ñu wax ñu saytu barki démb Linguère bi fa li amee l'année dernière président dafa ne nañu saytu structure de santé est-ce que def ngeen ko pour pourtant vous prenez vos salaires pourquoi vous prenez vos avantages chaque mois vous ngeen di dundu ci sunu ay ci sunu ay deniers parce que ñun ñoo leen di fay ñun ñoo leen di fay dañu am droit de regard fii mënu leen wax ba complexé fi kenn mënu leen wax ba tax kenn tëj gémmiñam dootul wax mënu leen ko def dañu leen fal pour ngeen liggéey amu leen benn yërmande du yéen a rey bébé yi seen responsabilité moom moo leen rey seen irresponsabilité moom moo leen rey vous êtes des irresponsables vous êtes des irresponsables vous êtes des gens parce que bu ngeen irresponsable lul woon li am Linguère am ko Louga di ngeen takk seen ay seen seen ay tubéy fexe ba wër hôpitaux yi def ci def ci matériel yu war def ci personnel yi war toujours ça va tomber sur les personnels de santé bu ñu waxee personnels de santé yéen ci seen bopp yéen lay woo bu ñu waxee ngeen ngeen érigé wu ngeen jóg taxaw ne yéen la ñuy song di def ay maat lan moo tax duñu leen song yéen a accepté di liggéey en sous-effectif lu tax ngeen di ko nangu pendant que ñi yor seen ministère yi di pavané wu en en en en di def lu leen neex ci seen ci ci ci budget bi ñu leen jox mais yéen yéen a accepté loolu yéen accepte nekk ci ay conditions yoo xamante ne xam ngeen ne mënu leen ci liggéey yore yore salle bu yor ay ay ay nouveau-né amul leen ay ay maxa oxygène yu doy amul leen lal yu doy amul leen ay extincteur amul leen ay ay ay déclencheur yoo xamante ne bu amee xal ndox mi déclenché wu amul leen ko matu leen vous êtes peu non vous êtes pas nombreux bu ngeen xëyee dem ci beneen salle sal bi vacant lu tax ngeen tëj sal bi quand on demande des responsabilités on ne vous accuse pas on pose des questions et on a droit de réponse les parents qui ont perdu on droit de réponse bàyyi leen nëpp nëppal bi bàyyi leen nëpp nëppal bi te arrêté bi bu caché derrière le ndogalu yàlla da ngeen koy arrêté fatalisme boobu noonu da ngeen koy def soit complètement soit ngeen bañ ko def mais fatalisme naafeq boobu on ne peut pas l'accepter mënu leen taxaw du jour au lendemain di bëgg faire des changements en politique, faire des changements ainsi, vouloir avoir de l'indépendance de notre pays, vous euh, changer, euh, de, de, de, sortir de néocolonialisme, de Khertili, de Khertili, mais quand il arrive, que Aïnit, Djelouni, c'est une responsabilité, Aïnit, Tahaouni, Tahawaï, Bouar, bah Aïnit, Fatou, Tingenne, Ndogolou, Yalla, la Ndax Yalla, moi, Raye. Kon, ku jam nit, agressé ko, jam ko paaka, bu ko ken jam, bu ko ken wax nañ ko tej ci kasso bi. Ndogolou, Yalla, là. kon ku mbëkk nit ci atali bi ndogalu yàlla la kon ku def lu bon ndogalu yàlla la parce que da ngeen ne bakkan yàlla moo koy yor dama ni il faut ngeen arrêter il faut ngeen arrêter ndogalu yàlla la ba kañ ba kañ ay liir yu judd matuñu dara mënuñu dara seen ay waajur jël leen dénk leen ay nit ñu jël leen dugal leen ci ay dugal leen ci saal xanaa bu ngeen bàyyi woon seen waajur yooyu ñu nekki seen wet sax xëy na ñoom dinañ leen sauver bu ñu séenee lakk ku ne di nga pop sa doom jóg daaw ak moom mais defu leen ko da ngeen di interdire parents yi ñu fanaan parce que y a pas un dispositif qui permet euh, aux aux familles de dormir avec leur enfant xam naa ci daal parce que dund naa ko ak suma jabaru mag dund naa ko ak suma jabaru mag ay fan yi fan day yeewu nàmpal dem këram ba mu xëy yeewu ñëw ñu ne ko sa doom dem na amu leen sax à côté juste à côté ngeen def fa ay chambre def fa ay lal ku indi doomam sax même bu ngeen nee pour des raisons de sécurité pour les enfants wala pour des raisons de salubrité mënuñu nekk ci espace bi parce que xale yi dañu soxla hygiène ak santé au moins seen yaay yi nekk à côté ngeen bañ a tëj bu yi bu problème amee ñoom ñu mën a sauver seen ay doom mënuñu ko dangeen leen di dàq ci xet gis naa maire bu ku ko wax da ngeen leen di dàq ci xet ñun xam nañu nu mu demee on n'est pas là pour personnel de santé bi yéen ak ñu ne yem vous êtes di victimes mais nag aussi vous êtes complice de ce qui se passe parce que yéen yéen a accepté di liggéey ci condition yooyu xam ngeen bu baax ni bu doon yéen yéen a jur doom teg ko ci condition yooyu du ngeen nangu ku tëj seen doom ci saal dem di doxi leneen ak leneen ni lu mu mën a am solo après ñu ñëw ne ñu ndogalu yàlla la ndogalu yàlla la il faut ngeen arrêter il faut benn un moment donné il faut ngeen am déclic il faut ngeen am déclic je sais que liñ leen di fay fajul seen soxla liggéey bi ngeen di liggéey metti na mais kenn imposé wul nit mu dem ci domaine u santé dafa am ñoo xam ne ñoo bëgg seen bopp loolu ay jàmbaar ngeen mais nag nañ waxante dëgg yu mel nii su amee yéen a a njëkk a taxaw balaa ñun ñii ñu ne nga xam ne nekkuñu woon foofu ci biir yéen a war njëkk a taxaw yéen personnel de santé yi yéen ñi nga xamante ne buggu leen ku leen joxoñ yéen ñi nga xam ne ku wax ngeen jàpp ne yéen la ñu wax yéen a war a njëkk a taxaw énumérer les manquements énumérer lee manquement parce que bu fekkente ne teguñu leen ci condition bu ngeen mën a liggéeyee da ngeen ko war a bañ taxaw ci mbedd bi ñaxtu ko sénégalais ànd ak yéen ñaxtu ko ak yéen bu ko defee ñu mën leen teg ci condition yi ngeen mën a sauver nit ñi mais nit ñi mënuñu bu ñu feebaree dem ci hôpitaux yi di fa dee hôpital du pour dee su ma mag bu góor noonu la deewee hôpital Fann dañu ko yóbbu xaaja guddi maa ngi tëdd yëguma ko kenn newu fa kenn nekku fa dañu ko jël te je je partage ça avec vous parce que je suis meurtri ku ma xam-xam ni duma taxaw di wax sama vie privée wala lu ma concerné ci ay ci ay réseaux sociaux mais il faut ngeen xam ni li nit ñi di wax waxuñu ko parce que dañu bëgg lu naqari ma Samba ak lu naqari ma Demba ñun on s'en fiche de Diouf Sarr wala de sa personne Diouf Sarr amul nu mu mën a toll ba fees suñu bët lijjanti wuñu ko mais nag bu ñu la dénkee li nga yor doxaloo ko la décence voudrait que nga sore ñu nga sore suñu ministère boobu mais munoo toujours yow yaa fi nekk maa tay lay ndurool maa tay lay ndurool maa fi nekk lu mën a am man maa fi nekk li ñuy wax ni dañu ko dund sama grand frère dañu ko yóbbu dafa def AVC xaaju guddi ñu jël ko yóbbu ko hôpital Fann bu ñu ko opéré woon ci saa si il allait ko yóbbu teg ko fa parce que il fallait que ñu xaar le lendemain xaw ma kenn ku war a ñëw bloc ñëw taxaw ak moom ñëw xool ko moment bi ñu ko war a xool ñëwee di ko xool bi ñu ñëwee fekk na mu nekk dans un coma am hémorragie cérébrale il pouvait plus se réveiller mënul yeewu nekk dans le coma bi ñu ñëwee taxaw pour ñu opérer ko c'était trop tard on pouvait pas le toucher et puis on a passé la journée dañu dawloo dem leen ngeen jëndi xawma ban tube ah pour ñu mën a xool est-ce que mën nañ aspirer le trop plein de sang des gens qui ont leur frère dans le coma loolu dafa am ci hôpitaux yi ngeen ne bu ñu ko wax kon lan la ñu war a wax lan la ñu war a wax ñu nekk ci ñun ñoo doon daw ñun ñi am sunu malaat tim ko mu nekk ci comment ñun ñoo doon daw ñaata famille ñooy dund loolu fii ci Sénégal ñaata famille ñoo koy dund ñun ñoo doon daw di wuti ay garab ñun ñoo doon daw di wuti ay tuyau yendu ci loolu foo dem ñu ne la amul demal fa ca des ñu di ko def bi ñu ñëwee taxaw pour que opérer ko ñu ne ñu il faut ñu xaar état am stabilisé wu. suma grand frère c'est dans la nuit qu'on nous a appelé pour nous dire il est décédé quand on dit que suñu système de santé baaxul on le dit pas parce que dañu far on le dit pas parce qu'on est opposant on le dit parce qu'on le vit on le vit parce qu'on l'a subi il faut ngeen arrêter il faut ngeen arrêter nit ñi dañuy dund li ñuy wax. mais mosuñu toog fii di wax sur ay problème personnel dañuy jël problème mu jàmbur parce que lii ñëpp a ko dund fenn ku nekk ci yéen ku may seetaan mës na dund anecdote bu mu am hôpital mës na ko dund tey dama koy partager ak yéen parce que bëgguma biitu may mun a bu ngeen xam may mun a bu ngeen xam moom may mun a boo xam ne bu amee lu ko metti sax daf koy denc pour ñëw xeex taxaw dëgër ak yéen pour ngeen ànd ak moom taxaw dëgër mais nag tey su suñuy xool dafa dagg suñuy xool dafa metti mais comment ça se passe après dañuy jooy pendant quelques jours après ñu giif après ñu passer à autre chose noonu la suma mag sama taaw yaay génnee àdduna après ñu ne la ndogalu yàlla la mënoon na faatu bu dee yàlla loolu la dogal mais au minimum fi mu dem pour faj waroon nañ ko faj fi mu dem pour faj waroon nañ ko opérer jël ko prise en charge faj ko bu loolu yépp amee bu génnee àdduna ñu door a wax ndogalu yàlla la xale yi yàlla na leen a bax juddu ak bakkan mënoon nañ leen foofu mënoon nañ leen protéger ñu bañ a ñu bañ a lakk bañ a asphyxié bu ñu deewee ñu ne ndogalu yàlla la mais pas tout le temps ñu fatalisme les gens on les laisse ñu war a faj du ñu faj condition yi leen di fajee baaxul puis après ñu ne ndogalu yàlla la et puis je vais finir par le président Macky Sall je vais finir par le président Macky Sall lii rek war na la woon lii war na la woon président Macky Sall ni mérité wuloo Sénégal parce que lambar lambar yi ça t'a même pas trouvé sur le territoire sénégalais un tweet on a un tweet et puis on ose voir ñu nga xam ni dañuy toog ci ay plateau di wax président réagir na ci tweet la réagir président boo xam ni tu n'es pas à côté de ton peuple dundoo sénégalais li ñuy dund yëgoo lu sénégalais di yëg heure bu méttee ci ñun yow tu n'es yow heure bu méttee ci askan bi yow tu es loin lan ngay dox lan ngay wër li ngay wër kenn gisu ko li ngay taxawaalu yow pour sa bopp kese la li ngay signé gauche à droite ana kan moo koy dund tey dund bi yokk na nit ñi sonn nañu kenn mënul faju lan ngay wër li ngay dox pour kan la pour lan la milliards yi nga jël def ko ci avion di kan moo ko gis pour lan la même quand on perd nos enfants tu n'es pas là tu n'es pas là un tweet on perd onze bouts de bois de Dieu il y en a qui disent et on a droit à un tweet pour nous consoler il a des discours il a des débats on veut la vérité on en a marre on veut les vrais coupables après vous nous demandez bu ñu nañu gëm justice bu ñu toroxal justice bu nit ñi jógee di wax muy muy homme politique muy femme politique ku ci yëkkati kàddu di wax ŋàññi les institutions ŋàññi la justice ngeen ne daf ko toroxal ban justice moo fi nekk ban justice moo fi nekk on n'a jamais droit à la justice on nu donne jamais les réponses wax leen ñu dëgg on veut la vérité on veut les vraies responsabilités ceux ki sont incapables et qui sont devant nous on veut plus les voir devant nous fekkente ne politique moo tax mënul wàcc sànni ko feneen mais on veut plus de lui dans le domaine de la santé yow président Macky Sall on a fini avec toi on a fini compris ñun en tout cas on a compris ñun bi ñu xamee yàgg na bi ñu xamee ni mënoo bëggoo te doo fi def lu ëpp li nga xamante ne moom nga fii def nii sa capacité fii la yem boobu la ñu takku taxaw ne dañ ne dañuy xeex ba nga jóge fii te on va y arriver incha allah on va y parce que nag deret bi nekk suñu biir seen dara yaram yi defuñu ko fi dañu ko donn te moomu leen nit ñi moomu leen nit ñi nit ñi mënuñu am seen naqar di wax ngeen bëgg a taxaw amu leen lu ngeen di wax lu dul ay explication a deux balles explication à deux balles Daba Ndaw moom bu démissionné wul sax moom pare nañ ci moom moom pare nañ ci moom lu am yàlla won ko ni ko moom yëgul sénégalais yi faalewul sénégalais yi yëgu leen du moom moom moo rey bébé yi mais moom mooy responsable je suis désolé on ne peut pas être responsable à moitié tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire nañ la jox cër nañ la jox cër nañ wax ni yow yaay le président l' institution kenn mënu la manquer de respect nañ la jox lépp lu ñu am nañ la jox tous les moyens ba pare aussi quand c' est des responsabilités nga ne doo ko jël chef suprême des armées chef de l'État chef de machin magistrat lépp yow yaa ko jiite mais quand il y a des drames tu ne prends jamais tes responsabilités tu ne t'excuses jamais yow doo jéggalu ni à ton nom ni au nom de tes incapables vous allez mettre quoi sur le dos yàlla donc qu'est-ce que vous foutez devant nous excusez-moi du terme mais lan ngeen di def ci sunu kanam su fekkente ne yàlla mooy doxal réew mi kon réew mi nañ ko jox yàlla kon da ngeen di wàcc loolu dafay leer su fekkente ne dëkk bi yàlla lañ ko war a dénk lépp yàlla la yàlla mooy ci kanam moo ci ginnaaw dangeen ngeen di wàcc fi ngeen nekk ñu jël dëkk bi dénk ko suñu borom dootu leen fi yilif kenn kenn ngeen fi dul yilifati kenn ngeen fi dul parce que nag dangeen koy mat wala ngeen matale ko mais ñun dootuñu nangu loolu moo fi mënatul nekk suñu xel yi dañ cee sonn suñuy xool dagg na on en dañu sonn am na leneen lu ñu tal mais du ñu nangu nag ngeen ne fii ci réew mi da ngeen yéen a jiite nit ñi yéen a yilif nit ñi yéen a yor loi yéen a yor règlement yéen a yor police ku wax ngeen ne appel à l'insurrection ba pare du ngeen jël seen responsabilité du ngeen accepter jamais ni yéen la du ngeen excuser wu jamais mun ti woon nekk yow président de la république war ngaa xeeb di ñu yónnee un tweet quand nos enfants meurent war nga mën a def un discours à la minute qui suit jéggalu xalif général di Tijaan ndaxte lii xamoon na ko waxoon na ko junjoon na ko jéggalu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen ay doom baalu leen mastawu leen sur le champ te lu nga doon def nga bàyyi ko parce que ci suñu service nga nekk moomu leen nit ñi bu ngeen di taxawaalu di lambar lambari di yëg ci ay avion di wàcc suñu xaalis ngeen di demee bu ngeen demee woon seen xaalis kenn du leen lijjanti sunu yoon nekkul ci ngeen yëg ci ci ci ci ci kaw or sunu yoon nekku ci mais sunu yoon dafa nekk ci li ngeen di def parce que ñun c'est nous qui payons ñun ñooy fay diwlin bu cher bi sunu xaalis ngeen di jël di ko lambar lambaree essence bi courant bi leneen ak leneen sunu xaalis la ñooy fay taxi yi ñooy fay impôts yi amu leen ci ñun benn respect. amu leen ci ñun benn kersa ragalu leen ñu ngeen bëgg ragal leen du ñu leen ragal faalewuñu leen waxuma la appel à l'insurrection mais appel au meurtre sax mérité ngeen ko appel au meurtre mérité ngeen ko su daganoon ñu def ko wallaay lazim su daganoon ñu def ko bu ñu ragalul woon lu ñuy layoo ak sunu borom ndax ñun sunu borom respecté nañ ko am na fu ñu ko teg bu ñu ko ragalul woon seen bakkan yi la ñuy jël fayee ko loolu parce que nit ki benn yoon kese lay dund benn yoon kese lay dee kenn du dee ñaari yoon kenn du dee ñaar yoon benn yoon dong la nit di dee lu neex waay fii bu ngeen bëggee toog ku wax ngeen décortiquer ay waxam mbel mbel mbel mbel kii wax na lii lu tax ñu defee ne lu tax ñu defee ne fitna patati patata te yéen fitna ji ngeen teg nit ñi moo ëpp bépp xeetu fitna dem démb fi ngeen ne Ousmane Sonko dafay yee fitna. waaye yéen fitna bi ngeen teg nit ñi ndax fitna mën naa weesu lii jël sa doom yóbbu ko ci l'hôpital mu xëy suba dee lakk ñi naan dafa lakk ba jeex ñi naan dafa xëm kenn mënu ko kenn mënu ko kenn mënu ko mënu ko mënu ko euh, sobe ay nit di daw seen yoon nekku ca sapeur pompier teelu ñëw hôpital boo gis war na am sapeur pompier bu taqaloo ak moom wala mu am au moins ci biir hôpital bi mu am un système am un camion boo xamante ne du bouger en cas d'incendie ni ngeen di jël di ko recruter ci ay personnel politique mais n'importe quoi après on nous dit faut pas parler mais c'est du n'importe quoi ce pays c'est du n'importe quoi quand tu peux recruter ay hauts conseillers quand tu peux recruter ay institutions yoo xam amalul Sénégalais yi benn xeetu njëriñ doo instu doo doo jël ay nit ñu nekk ci santé bi jël leen ñu liggéey ñu mat ci hôpitaux yi nga former leen comme il faut mais par contre mun nga jël di former di jël des gens des des des personnels politiques à gauche à droite et les hôpitaux sont sous-équipés en personnel comme en équipement. après vous vous en fichez bu ñu waxee ngeen ne vous vous en fichez pas lan ngeen def pour éviter ça qu'avez-vous fait depuis l'année dernière à Linguère qu'avez-vous fait dans tous les hôpitaux du Sénégal pour éviter ça gouverner c'est prévoir. Vous ne pouvez pas être dans des responsabilités, dans des gouvernements et ne, vous ne faites rien maintenant, vous criez au sabotage. Arrêtez d'insulter notre intelligence. am doom nu mu jafee ah nit ki am doom jox leen ko jox leen ko lu ngeen di wër ngeen lu ngeen di taxawaalu yéen da ngeen am droit bokk ci benn forum international yéen seen national matul seen national matul y a rien de de de normal dans votre pays et vous voulez aller sur des plateformes internationales pour faire quoi mais c'est du n'importe quoi ce pays c'est du n'importe quoi ngeen di dem di pavané Quand c'est pas à Dubaï, c'est à Genève. Quand c'est pas là-bas, c'est là-bas. Vous faites les grands monsieur, les, les machins. Alors que dans votre pays, on meurt parce qu'on n'a pas une seringue. Dans vos hôpitaux, il n'y a, pas de, y a pas de désinfectant. Il n'y a pas d'extincteur. Vous devez avoir honte. Honte de quitter ce pays-là. yow Diouf Sarr war nga rus tu jóge Genève di ñëw sa sa hôpital boobu amul extincteur amul système bu mën a fay incendie Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'est pas obligé. On va se lever. De force, on va se lever. Parce que nous, contrairement à vous, nous savons c'est quoi notre responsabilité sur ce monde. Il y a le monde Mais Dieu nous a mis dans ce pays-là pour, pour connaître nous, nous, pour apporter notre contribution. Dieu nous a pas mis dans ce pays-là pour dire non ndogalu yàlla la si président Macky Sall ou président ndogalu yàlla la si je suis malade je me soigne pas parce que c'est ndogalu yàlla la ndogalu yàlla la si si ndogalu yàlla si si il faut arrêter yàpp ngeen yàlla yàpp ngeen yàlla gëmu leen ko wóoluwu leen ko pareil mën naa comprendre ñu wax loolu parce que sénégalais bu gëm dañu gëm ñun dañu gëm boo demee ba lépp jeex da ngay langaamu ci yàlla parce que yàlla ku langaamu ci moom doo daanu ku la ngaamu ci moom doo wadd c'est lu le dernier et le premier rempart lui seul peut supporter toutes sortes de souffrances lui seul peut t'aider aussi à supporter tout sortes de souffrances loolu moo tax loolu moo tax ku ñàkk pexe ku ñàkk pexe na yàlla la parce que yàlla moom ku ñëw ci moom am pexe ndaxte lu mu dee dee dana la jox xolu muñ dana oyofal sa naqar mais loolu ça vous excuse pas vous les responsables vous qui avez pris des postes de responsabilité vous qui prenez salaire vous qui prenez avantage pourquoi pour du travail que vous ne faites pas que vous ne faites pas si on se lève pour faire une marche Rama Diallo ils vont dire oui ils vont politiser le dossier bàyyi leen di politiser lépp vous nous fatiguez avec ça on perd nos frères on perd nos enfants Et on pleure et on se tait. Et quand il y a des douleurs, vous qu'est-ce qu'on peut gagner à avoir mal nit dina toog di naqaral xolam di buddi xolam di joy lan nga ci gagné lan nga ciy gagné ñun on a plus besoin de dire aux Sénégalais d'en finir avec Macky parce que les Sénégalais en ont fini avec Macky ça fait des années qu'ils en ont fini avec Macky chaque élection ñu woon ko ko Il a beau faire ses njuuj les Sénégalais dans leur majorité je sais qu'ils en ont terminé avec Macky mais c'est pas parce que on va ils en ont terminé avec Macky en 2024 qu'on va subir vos conneries d'ici là et qu'on va se taire et qu'on va se taire et, subir et di dund lu metti fii ba 2024 parce que on va en finir avec toi on ne le fera pas koy waxee fii lañu koy waxee da ngeen ñuy respecter ci nii walla ci naa gis nga la respect wala les droits de quelqu'un kenn du ko jox nit nit ki moo koy arraché de force da ngeen a xam ni nag ñi ngeen di teg naqar am nañu lu ñu tal quand tu vois cette mère te dit dama sonn mënatuma sax wax elle a dëkk ba dëkk parce que foofu amul amul plateau médical bu ko ak bu ko recueillir mu jaar waa ngaay mexe ñooñu jël ko yóbbu ko ci waawoon mu am foofu yaakaar wasileewu fa sax loolu moo tax doomam demee foofu loolu moo tax damam doomam génn foofu parce que amul plateau médical depuis combien d'années ñuy wax plateau médical bi Covid bi ñëwee yàlla toroxal leen li ngeen doon nëbba lépp génn lépp génn amu leen plateau médical parce que ñi doon daw di rëcc di dem di faju di yëpp fii leen deewee fii leen deewee mais tey boobu ba léegi lan ngeen def hôpital bu ngeen def barki démb hôpital bi ngeen def bi ngeen def au niveau de Kédougou def ko au niveau de Touba politiser ngeen ko depuis ñaata weer la tëju actuellement ngeen di wax waxu ubbi ko da ngeen koo tabax tëj ko ay weer ndax seen lépp politique la seen lépp nguur la seen lépp falu la loolu moo tax ngeen yaakaar ni ku wax nguur a tax muy wax faloo tax muy wax ñu lijjantiwuñu loolu lijjantiwuñu loolu parce que ñun yàlla daf ñu sàkk ñu mat li ñu doon bu ñuy tukki xaaruñu falu pour tukki bu ñuy jëndal suñu bopp ay kër xaaluñu ñu pour jëndal suñu bopp kër bu ñuy jënd ay oto xaaluñu falu pour jëndal suñu bopp ay oto dañoo dañoo lépp lu ñu am ñoo ko wutal suñu bopp mais dañu jël suñu jëmm yii xool ci doom yi ñu am investir suñu ay jëmm ci réew mi parce que dañoo moom réew mi suñuy mag bu ñu feebaree dañuy dee ci hôpitaux yi moo tax ñu engagé wu en politique suñuy doom bu ñu feebaree dañuy dee ci hôpitaux yi suñuy jarbaar suñuy rakk suñuy xarit loolu moo tax ñu engagé wu ku wax ngeen foog ni li leen taxa yéen taxaw di wax moo tax nit ñi di wax mais fii on se connaît on se sait tout le monde sait qui est qui on sait qui est qui pays est une farce Il faut que ça s'arrête. Vous passez votre temps à indexer du doigt les tubaab à indexer du doigt les étrangers ñoom ñoo leen gën yéen ñi jiite réew mi ñoo ñoo leen gën parce que ñooñu au moins tabax nañ fa hôpitaux bàyyi ko fi ñooñu au moins seen dëkk tey kenn du fa dee ci yenn yi ku feebar di nga faju ku feebar di nga faju ngeen nekk ci réew moo xamante ne tu vois des gens hein, avoir des millions de salaire rouler sur des millions seen dara matul seen ay hôpitaux des bébés meurent dans vos hôpitaux des bébés meurent dans votre dans vos dans, dans, dans vos hôpitaux de Tilmaxa à Tivaouane elle perd son bébé non mais c'est une farce C'est une farce, il faut que ça cesse. Et maintenant, on dit aux gens qu'on va terroriser les gens, on va dañuy dañuy def loolu nit ñi des problèmes de conscience quand il y a des choses qui se passent comme ça on dit aux gens oui nit ñi dañu war a am parce que c'est le temps de la douleur le temps de la douleur n'empêche pas de dire la vérité parce qu'on ne peut pas faire son deuil dans la dans dans le mensonge il faut la vérité et la vérité yéen amu leen ko vous ne la sortez jamais la vérité l'histoire de Linguère, l'hôpital de Linguère, ça a fini comment Qui est coupable Qui est coupable Qui a fauté On directeur. C'est tout, on fait sauter le directeur. La dernière fois, à Soussorna, on fait sauter le directeur, on arrête les chasses femmes. Après, on les condamne, après, on les libère. Il n'y a pas de fautif. Il n'y a pas de responsabilité. Et vous ne voulez pas que les gens vous se révoltent Li ngeen di def moo waral xale yi di révolté wu. Li ngeen di def moo waral violence bi di yokku. li ngeen di def moo war a waral xol yi di fut moo tax nit ñi léegi koo gis yéene na moroomam dee ndax yéen ni ngeen jiitee réew mi la ni ngeen jiitee réew mi la bu fi kenn wax ni du yéen a ko fi commencé kenn santu leen ngeen demandé na ñuy rupture kenn santu leen ngeen ñëw en 2012 xeex fi ba 14 personnes dee mënoon naa ci bokk parce que maa ngi woon ca tali bi di xeex contre la troisième candidature de Wade kenn obligé wu leen ngeen mener ce combat là ngeen taxaw ne nañ leen jox yéen a wax jox leen ñu yéen a wax jox leen ñu ñu doxal ñun ñoo ëppale ñi ñu dénk leen kon vous êtes responsable seen responsabilité mu ngi commencé 2012 kenn du remonter avant parce que 2012 ba léegi vous avez géré plus de cinquante mille milliards fan ngeen ko def ba tey ñu ngi dee ci hôpitaux yi defu leen ko fu ngeen ko war a def loolu mooy dëgg bu leen ñu fat suñuy xol mënta futtu ba pare ngeen ne duñu wax lu ñu naqari loolu mënul exister mënul exister ñun soxlawuñu dem assemblée pour wax lu ñu naqari li ñu naqari dañu koy wax fekk suñu bakkan yi mu ngi nooy te nag di demander képp ku ne Sénégal nga taxaw temm nga taxaw temm takku taxaw moom moo jot ci lépp nag bu laajee mu commencé ci hôpital bii ci lu mu mënti commencé takku taxaw moo tax moo jot ñun ñépp nañ jóg takk taxaw parce que nag ñu fi taxawee naan dañuy xaar 2024 pour takku taxaw yàlla ñu fi fekk à ce rythme bu ñu jamulee paaka ci mbedd mi par agression mën nañoo accidenté ci tali bi par par manque de de vigilance wala ku ku yorul permis wala ku dawalul bu baax wala tali bu baax wa ilaa bu ñu amee lu ñu metti tur ñu dem ci hôpital bi ñu eggali ñu kon nag balaa nga naan naam ne fa 2024 dafa sori ça commence maintenant ça commence maintenant lu mu laaj pare nañ ci lu mu laaj pare nañ ci Diouf saar moom damaa yaakaar ni bu toogee ci ministère bi loolu mooy wane ni nag Macky Sall ci boppam la nguuram jeex ci at bii ñu nekk nii parce que Macky Sall mënuñoo yab yab gu toll ni boobu ba léegi ministère bi Diouf Sarr ay njombe dong di ci am Macky Sall bàyyi fa Diouf saar Diouf Sarr continuer di gérer suñu sante loolu mën loolu mënta nekk loolu mën ta nekk loolu nag sénégalais yi laa ci invité na ñëpp jóg taxaw takku taxaw na ñëpp jóg takku taxaw Diouf Sarr moom daf ñuy abal pas pour sa personne wala pour son amuñu problème ak moom mais il faut avoir que même la décence de bouger quand tu es devant les gens et que mënoo doxal mais sonn nañu ci yow doxaloo mënoo yaa toujours des problème amul responsabilité mais au moins abal ñu mais abal ñu ah bu keneen ñëwee bu problème bi réglé wul mais au moins bàyyil keneen kooku mu ñëw yow va à autre chose wala boo pertee ministère de la santé da ngay dee ta vie sa se résume pas à ce ministère tu as autre chose à faire demal defi leneen suñu santé la ñuy wax nga dindi ci sa loxo kenn yéenewu la leneen kenn soxorewu leneen demal ñu dugal la ci beneen ministère sunu yoon nekku ci mais génnal ci sunu sante ngir laay wala sóori génnal ci suñu sante bu fekkente ne am na loo séq ak wala am na lu mu ragal ci politique ba mënu laa dindi yow au moins amal kerse sénégalais yi doy leen nañu ci yow doy leen nañu ci yow balaa ngeen di démissionner rek nit ñi wax ko ci kaw lii kers dafa ruslu lii dafa ruslu ñun dañu sonn bu ngeen mën au moins ngeen abal ñu ngeen indi un autre tocard mais au moins qu'on change de tête de tocard mais quand même si même y a que des tocards changeons de tête de tocard au moins ça nous fait peut-être voir de nouvelles têtes en attendant d'en finir avec vous mais ne peut pas toujours nous imposer les mêmes tocards toujours les mêmes tocards toujours toujours il faut bouger d'accord il faut démissionner il faut aller faire autre chose génneel sa loxo ci sunu santé président Macky lu tax man duma ko laajati dara man maa ngi ci tànku di tàggook moom lu mu def baax na lu mu deful baax na lépp na ko doxalee noonu moom mu ngi ci fin loolu leer na loolu leer na dafa war a changer Diouf Sarr bu amoon jom Macky bu amoon jom am gis-gis du changer kenn boppam lay changer du dàq kenn boppam lay dàq moom moo fi jóge ndaxte mënoon na ci réew ay njombe kese di am nga gérer des milliards hôpitaux yi nit ñi di ci dee comme ça pour négligence personnel matul matériel matul amul équipement bu doy amul hôpitaux yu doy nit ñi di dang-dang yi di daj lu ne di jóge dëkk ba dëkk pour dem di faju ji yow ngay defar ay BRT yow ngay defar ay ay ngay defar ay ay ay ay ay terre yow ngay defar ay corniche aménagée yow boo amoon jom wala nga am tuuti looy daw ngay looy rus yow yaay démissionné doo daq kenn donc yow waxuma sa wax j'ai un peu plus espoir en Diouf Sarr un en Macky quand je parle de démission Macky moom ni ko fi dugalee rek noonu lay génnee man loolu laa gëm biñ ko fiy dugal xeex bu metti bu tar ay bakkan faatu ñu génnee ñu dugal ko noonu la duggee bu moytuwulee noonu mu faloo noonu lay follee ko parce que dañu ne qui quiconque vaincra par les armes périra par les armes te lui il a vaincu par les armes fii fàtte xaju fi fii fàtte xaju fi oui Junior Ibrahim une brave dame Eva Marie Coll parce qu'elle n'est pas politique elle n'a pas de base politique on l'a virée et pourtant elle a fait des réformes elle avait fait des choses et suñ ko fi bàyyi woon ba tey avancé na mais au-delà de combattre les femmes on combat les compétentes Au-delà de combattre les femmes, on combat la compétence. waaw ah, léegi ñu tegal ñu des gens yoo xam ni parce que il y a des considérations politiques oui suñ ko dàqee par rapport ak ak ak ak ak ak euh, comment dirais-je Yoff on va perdre peut-être Yoff on va perdre Dakar donc tout ça c'est politique seen président politisé réew mi ba mu yàq ku wax ngeen ne day politique ñun bu ñu neexee ñu politique ñoo tey kenn dafa mën a politique ba raw Macky Sall ku politique ba politique administration conseil constitutionnel armée police gendarmerie euh, euh, euh, tribunal maintenant les hôpitaux lépp ngay politiser ku mu neex nga politique parce que kenn du politique ba raw ki ñu jiit réew mi fii ku fi politique rek yow bébé nga par rapport ak Macky Sall ndax moom politique dans tout à l'excès overdose de politique oui Adja oui Adja Bara ils doivent être traduits à la CPI parce que seeni enquête du mujj fenn ils vont te dire on a ouvert une enquête puis dans quelque temps ils vont trouver des boucs émissaires des petits gars directeurs nangam nangam ils vont les prendre les limoger ñoom ñu toog fi ñu toog ñoom daal fi ñu toog ñoom kese ñoo fa war a toog kenn kenn mënu fa toog ku dul te tu as l'impression que ils sont assis sur un scandale ils ont fait des magouilles moo tax bëgguñu bouger seen poste yi looy ragal lan nga def ci ministère de la santé bi ci Covid bi lu tax bu bëggoo démissionné yan placard yan yan kafaar nga am dans tes placards lu tax mënoo ñu abal lan ngay nëbb lan nga bañ nit ki remplacer la ñëw fekk ko fa avant seen départ de 2024 s'il y a quoi parce que quand même un être humain bu am dignité mënoo nekk ci benn poste de responsabilité tu n'avances pas tu échoues il y a toujours des problèmes et tu bouges pas c'est parce que tu gardes quelque chose am na luy nëbb lan la lan la ñun nag duñ fi nekk ah duñ fi nekk di xëy di liggéey di daan suñu doole yor suñu ay doom bu ñu xëyee di jàngi ñu ragal est-ce que kenn jamu leen tout le temps ñu nekk fi peut-être on va se faire agresser dans la rue peut-être si peut-être ça et vous nous demandez de nous taire wul noppiwul ñoo noppiwul ne serait que la thérapie de la parole il faut refuser de vous taire Parce que se taire, c'est être complice. Prenez la parole. Indignez-vous. Parce que nak, cette histoire de, de dire que tout, tout, tout est, tout est là, là, ça, faut arrêter ça. Ça, faut arrêter ça tout de suite. Ça, tout de suite. yàlla li muy def mu ngi koy def yàlla tegu leen fi ñun ñoo leen fi teg ñoo leen fal bu nekkoon ndogalu yàlla kese du ngeen ñu jiite ndaxte yàlla toujours li gën lay jël di ko teg mais ñun ñuy bëgg suñu borom bi fekk suñu si bu loolu weesoo tey sénégalais yi le minimum qui leur reste le minimum qui leur reste c'est euh, de ne pas être insensible dëkk bi metti na chaque jour ak son lot de problèmes barki démb nit moo rey nit par cupidité ñu bëgg ko jël retourner ko contre les femmes ñu bëgg ko jël retourner ko contre les femmes jabaram moo ko doon teg pression cupidité parce que société bi moo toll noonu lu tax société bi toll noonu ba koo gis mu bëgg a yore sol costume koo gis mu bëgg a def dund m'as-tu parce que dafa am ay njiit yu ko ko won dafa am ay njiit yu taxaw taxawaay boobu dafa am ay njiit yoo xamante ne ñoom ñoo jël dëkk bi depuis des décennies wane ni pour nga dund pour nga réussir il faut nga egg ci benn niveau bi parce que ñoom dañuy egg ci niveau boobu jàpp ni réussir nañu loolu moo tax seen tout tànk di leen toppandoo non Yewwi Askan Wi ne se taira pas on se taira pas on peut se taire quand il s'agit de la politique parce que ça ça ça nous touche pas on peut se taire quand il s'agit de certaines choses parce que ça nous touche pas mais on ne peut pas se taire quand il s'agit de douleurs aussi profondes ay jigéen comme ñun ay papa ñu dund ko du ñu noppi ndax loolu maa ngi jégalu bu baax a baax su fekkente ne j'ai donné une image un peu faible de moi euh, j'aime pas di di ma gis may juum may may may may jooy du moins j'aime pas ça suma engagement pour le peuple sénégalais c'est de renforcer li ñu am loolu mooy mooy sama engagement sama engagement mooy taxaw xeex te soldat bu xeexee buy xeex du baisser les bras du du du du du fléchir mais ay nitu kese lañu ay nitu kese lañu lii dafa metti ba ci kanamu yàlla te comme li ma leen wax sànq dama ko dund dama ko dund moo tax démb ba léegi mënu ma nelaw tellement j'ai mal sama xol bi dafa metti dinañu muñ Mama John Fall dinañu muñ parce que euh, euh, muñ lañu am mais nag duñu muñ noppi duñu jéem dara non il faut ñu jéem dara il faut ñu jëm dara nañu bàyyi lu am rek ñu baissé sunu bras yàlla bëggul loolu yàlla bëggul loolu yàlla daf ñu def ci réew mi sàkku ñu ñu jur ñu nekk bokk ci askan wi li may wax chaque jour yàlla dugaluñu ci beneen xeet dugaluñu ci beneen planète fii lañu def fii ci Sénégal kon li am fii ci ay problème sénégalais ñun sénégalais yi ñooy koy taxaw xeexak ko suñu bopp yàlla du wàcc di ko xeex wa ilaa ñu dàq politiciens yépp changer république bi dénk ko yàlla suñu borom est-ce que loolu mën naa nekk est-ce que loolu mën naa nekk tey buñ fi dëkkoon bu doon dëkk diine la sax laa lay wax nii ay nit ñoo koy doxal yàlla wàccul di doxal benn dëkk bàyyi leen di jël yàlla di ko teg ci yenn yi pour organiser àdduna yàlla dafa dafa sàkk ay nit sàkk ay saxaaba sàkk ay yenant sàkk ay waliw sàkk ay nit pour ñu doxal parce que nit moo mën a doxal àdduna bi du ay mala ñoo koy doxal mala yi sax yàlla dafa am lu mu leen dénk ñii ñu leen war a jëriñoo pour dund ñeneen ñi ñu bàyyi leen ci àll bi pour ñu am lu ñu def kenn ku nekk dalaa jox responsabilité ñun doomu aadama yi yàlla daf ñu sàkk jox ñu baat jox ñu xel jox ñu ruux jox ñu leneen ak leneen jox ñu ay loxo ay tànk gémmiñ làmmiñ ay bët pour ñu xool ay nopp pour ñu dégg teg ñu fi pour ñu doxal teg ñu nag gaxal ñu ay exemple ay ay ay yonent tegal ñu ay saxaaba tegal ñu ay xadis tegal ñu règle pour ñu doxal pour ñu jéem pour ñu changer kon du pour bu dara amee ñu ne ndogalu yàlla la il faut ñu jël suñu responsabilité bu loolu amoon ki sàcc yàlla du ne dagg leen loxoom dañ naan ndogalu yàlla la ndax yàlla moo ko sàkk xanaa moo ko sàcc loo ki rey yenn dëkk yi du ñu ne nan nan ko ray dañ naan ndogalu yàlla la parce que yàlla moom mooy reye kon kooku reyul bàyyi leen li ngeen di def bàyyi leen li ngeen di def bu dara amee nañu wax kan mooy responsable mais génne leen ñu kàddu boobu tegee ko leen kan mooy responsable de cette responsabilité y a un responsable de la responsabilité nañu ko situer nañu ko condamné na wàccoo ak yoon bu ko wàccee ak yoon nag loolu delloo siwul xale yi génn àdduna de déedéet waaye au minimum bu boobaa nag ñu ne kii nañu ko bàyyi ñu bàyyi lépp ci loxo yàlla mais yéen du ngeen am responsabilité yéen amu leen benn responsabilité kon yéen lu tax ñu fal leen lu tax ñu fal leen lu tax ngeen di fayeeku lu tax ngeen di xëy di xëy di gontu lu tax ngeen di wàcc Macky Sall lu tax nga nekk ci pale bi amoo benn responsabilité ci lii am ci réew mi sa ministre tamit amul responsabilité yow doo responsable parce que da ngaa fal ministre ministre bi tam du responsable. directeur ba ca hôpital ba est-ce que moom moo war a équiper hôpital bi bu dee moom la tëj leen ko ci kaso bi wàccee ko dafay ndaw bu fekkee da ngeen a jël xaalis jox ko les directeurs d'hôpitaux pour ñu équiper hôpitaux yi te defu leen ko defuñu ko da ngeen leen war a tëj mais ay limogeage ak i décret on s'en fiche doyatuñu doyatuñu bu fekkente ne yéen ñi jox ministère yéen a war a def loolu defu leen ko yéen wàcc leen abal leen ñu ñun nag on va résister. On va rester debout. On va continuer de parler. On va continuer de se battre. loolu moom am na loolu moom dara dara du dañ ci loolu et on va continuer de vous dire les vérités que vous connaissez autant que nous parce que nag fi kenn dofu fi yéen a gën a xam dëgg bi ndax démb bi ngeen nekkee ci opposition bi nii ñuy waxee ñun nii ngeen doon waxee kon tey qu'est-ce qui a changé c'est pas la vérité qui a changé c'est vous qui avez changé d'angle de regard yéen a nekkatul ci côté bu baax bi yéen a nekk ci boor bële looloo tax nangootu leen gis li nekk fii ñun ne comme ñu ngi fii ba léegi dinañ continuer di ko xool te di ñaan yàlla nag di ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ba wutale ñu ak yéen te incha allah dinañ wuti ak yéen parce que bokkuñu ak yéen ba bis bu ñu demee de l'autre côté aussi de la barrière ñu mun a continuer di gis dëgg bi te bu ñu ko deful itam. ndax suñu ñàkk mat wala ndax suñu di wala ndax suñu mel ni yéen dina am yeneen sénégalais yu mel comme ñun yu taxaw fii duñu woon dëgg bi ainsi va la vie ainsi ira cette vie là moi je vais finir par là euh, dans Sokho Ndigal Fall gannaaw ngeen ne lépp ndogalu yàlla la yàlla nañu yàlla àtte ak yéen yàlla nañu yàlla atte ak yéen gannaaw lu am yàlla la gannaaw lu fi xew ci réew mi ci lu metti yàlla la lu baax nag nag du ngeen di wax yàlla la de da ngeen di taxaw ndamoo ko ne yéen la seen politique la seen vision la seen doxalin la yéen a investir ci lii yéen a def lii seen mënoon la seen ay kii tagg seen bopp ba mu ba mu rafet lépp lu baax ngeen indi seen bopp wax ko dangeen mukk ne yàllaa tax teer yi am yàllaa tax pétrole bi génn yàllaa tax nga dé lépp ci xarañte président Macky Sall moo jig Sénégalais lu baax rek Macky Sall la waaye lu bon yàlla la kon yàlla na yàlla atte la yow président Macky Sall ak askanu Sénégal ci jafe-jafe yi ñuy dund yu metti yi bu ñuy jooy sax yow booba yaa nga ca jaww ga di dox nekkoo fi quand ça fait mal tu n'es taxaw sa wax ak nit ñi xeeb nga ko ay tweet nga ñuy may ay tweet nga ñuy may waaye yàlla baax na gannaaw yàlla da ngeen ko ci teg yàlla ak a wóor yàlla ak wóor te foog naa ni nag bu ngeen gisee lii di am yépp ngeen xam ni yàlla nelawul nelawul te nag am na tuuti rek lu ma bëgg a jeexalee euh, dafa am koo xam ni dafa am ñoo xam ni dañuy utiliser seen ay plateforme yu ñu am moo xam télé walla leneen pour heure bu ñu xëyee toog nee naa yu dañuy nasaxal xelu askan wi gis nga askanu senegal kenn gënu leen a yeewu kenn gënu leen a mat yu dëgg la nag des fois doo comprendre dan moo tax ñu fataliste man mën naa ko comprendre parce que dama naan ngëm-ngëm la ak jaaxle fu fuñ ko teg looloo tax lu ñëw rek ñu def nii nangu ko wante euh, askanu Sénégal Euh, lenn de xam naa ko mooy seeni responsabilité buñ ko waree jël dinañ ko jël ndax xam nañu kañ lañ ko war a jël ngeen jéggal ma nag maa ngi jéggaluwaat bu baax a baax ci euh, kaddu yi bu fekkente ne am na ci dëng maa ngi jéggalu itam ci rangooñ yi duma ko dindi euh, duma ko effacer dama ko fi bàyyi à moins que mu nekk loo xam ni dina am ñu mu metti de trop parce que man bugguma di di di di tooyal xolu nit ñi du waxuma ko pour nit ñi jooy mais dafa nekkoon ci suma xol euh, boo demee nag ba nit ñi yéene la bëgg la boole la ci ñoom bu situation amee sax li ngay wax ñu gën la koo mën a wax gën la koo xam mais ñu bëgg nga yëkkati sa kàddu teg ko ci parce que xëy na di nga leen dëfal wala di nga di nga oyofal naqar bi ci seen xol moomatuloo sa bopp loolu dong moo waral ñu jël ñu jël kàddu gi mais fan yii yëpp dañoo décidé woon ni duñu jël duñu jël kàddu ci yenn yi mais comme dem nañu ba mbir mi toll foo xamante ne bu yenn situation yi amee nit dañu ñuy demander wax leen ci ak jóg leen ci loolu moo tax ñu ñu taxaw taxawaay bi et puis aussi une certaine façon bokk ak yéen itam dañu dañu dañu dundu expérience bu ñu dund pour war leen ne ay nitu kese lañu ay nitu kese lañu quand bu ñu taxawee dëgër wala taxaw rek c'est parce que yéen ñu may kattan sénégalais ñoo ñu may kattan bu ñu taxawee parce que ci ñoom la ñuy wéeru mais bu dul loolu. Euh, ñu nekk yéen ñoo yem wala sax ñu gën leen a sensible wala sax ñu gën leen a ñu gën leen a xaw ma nu ma ko mën a waxee man su nit ñi mënoon xam ñaata problème laay yëg jooy ba sonn euh, tëj sax duma ci bëgg a wax du jeex du xaaj euh, des fois nag c'est que dañuy préférer rek pour sunu doom yi pour sunu sœur yi ak pour combat bi ñu nekk nii di wane beneen image image yu nit ñu nit ñu mën a muñ nit ñu mën a am contrôle ci seen bopp loolu moo tax ba même suñu amee lu ñu metti dañuy fexe bañ ko wone ci écran bi mais lii nag moom vraiment euh, dafa demander plus qu'un soulèvement populaire lii dafa laaj nit ñi nit ñi taxaw loolu moo waral euh, euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñëw comme on est ah nature nature comme on est voilà bokk ak yéen vraiment naturellement donc loolu kese loolu kese moo tax mais maa ngi ci maa ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax a baax su fekkente ne y des gens qui n'aiment pas me voir comme ça di ci jégalu suma ay famille suma ay xarit parce que li ma fi partager itam moomu ma ko ah parce que quand je parle de mon grand frère dama ko bokk ci ay ak sama ay euh, ak sama famille waaye Zena voilà c'est une c'est une c'est une thérapie aussi quelque part donc maa ngi jégalu suma ay famille parce que j'ai partager des choses yoo xam ne hmm, dafa nekk des choses privées maa ngi ciy jégalu bu baax a baax parce que peut-être que ñu bari ci ñoom bu ñu seetaanee live bi dina yëngal seen xol maa ngi leen jégalu d'avance parce que vraiment loolu taxuma woon jóg mais si seulement parce que am na fooy tollu euh, souvenirs yi dafay remonter euh, parce que nit lu mu ñàkk lu mu yàgg-yàgg daf koy fàttaliku euh, mais soo ñàkkee dans ces condition c'est encore plus dur parce que toujours tu vas te demander lan laa waroon a def lan laa mënoon a def de plus man c'est toujours quelque chose qu'on se qu'on demande parce que suma frère boobu génn na àdduna Aboubacry ci ci ci ci génnam àdduna am nañu kéemaane yu am solo yu bare yu ñu suñu borom bi dégg woon parce que bis biñ koy denc euh, dafa nekkoon euh, dafa nekkoon nekkul woon période hivernage mais dafa taw moment biñ ko ba mu duggee ci suuf ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne euh, euh, euh, dinañu xam ne bakkan bi ruux bi yàlla nangu na ko mais am na lu jiitu woon loolu loo xam ne xëy na mënoon naa ci mënoon nañ ci dara parce que waroon na ko teel a yëg est-ce que mënoon naa ànd moom hôpital lu tax ma yóbbu ko hôpital pourquoi yóbbuwuma ko clinique lu tax jéemuma ko yóbbu génnee ko dëkk bi yóbbu ko feneen y a tellement de choses euh, yoo xam ni da da ngay da ngay poser et ça reste toujours là euh, des années après euh, soit bu ma demee ziar ko ñaanal ko da ngay fàttaliku da ngay xalaataat donc loolu moo tax soo gisee kenn ku lu metti dal rek dafay dafay yëkkati sa naqar day beesaat takk day mel ni yow tey nga ñàkk loolu moo tax ñu war a góor góorlu di ñàkk ci ñàkkin yoo xamante ne dinañ ko mën a wékk ci yàlla kese yàlla képp waaw ñàkk yooyu moom moom la ñu mën a muñ mais bépp ñàkk boo xam ne dafa am responsabilité humaine ci biir dafa naqari dafa naq naqari loolu kese moom moo tax ma def dérogation boobu partager des choses intimes et de famille yu nga xam ne tey tout une famille muy samay sœur samay frère ku seetaan vidéo bi dina beesaat ci yow dina naqariwaat ci yow maa ngi ciy jéggalu mais je pense que Sénégal Sénégal mérité na loolu Sénégal mérité na ñuy partager suñu expérience pour di comprendante ñi nga xam ne des fois ñu comprendre fi ñuy waxee bu ñu yëkkatee suñu xol wax ñu jàpp ni dañu far moo tax ñuy wax waaw dañuy far du côté de la douleur dañuy far du côté de la peine dañuy far du côté du ñàkk loolu moo tax ñu ñu ñu ñuy wax loolu moo ñu yëkkati mais ñu d'un autre côté politique ou d'un autre côté de quoi que ce soit far bi ñu far rek mooy naqar bi ñu bokk ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñàkk loolu lañ fare ak ñoom loolu lañ bokk ak ñoom mais du beneen far bu bu beneen beneen beneen domaine jamais de la vie suñu ay suñu ay réaction mënul dicté wu par des calculs on n'est pas si froid que ça on est humain encore on est humain suñu humanité boobu ñu garder yàlla bu ñu ko ñàkk yàlla bu ñu ko ñàkk bu ñu ko nammee ñàkk yàlla nañu arrêté bépp xeetu politique dem defi leneen ñaanuma yàlla man dem ba nekk nit ku insensible nit koo xam ne lu metti day am ma mën a taxaw avec froideur di ko layal il m'arrive de rigoler il m'arrive de me battre il m'arrive de d'être persévérant il de pleurer parce que nitu kese lañu li ñu jaaxal kay mooy ñi ñu jàkkaar lool yenn xeetu nit lañu maa ngi koy yemale foofu di jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi di ñaan nag vraiment nañu takku taxaw nañu takku taxaw nañu jéem a xool mbir mii nan lañ ci taxawee taxawaay boo xamante ne soit responsabilité dañ leen di situer soit plus jamais ça lii moom a gën a ñor xeexu assemblée nationale moom a gën a ñor bépp xeet bu nit mën a taxaw fii ci suuf xeex bi moom ma ko gën a ñor soit Diouf Sarr day démissionner soit responsabilité ñu situé leen directement soit ñu taxaw takku xeex ba dootul amati lii parce que dootuñu nangooti suñu ay doom wala suñu ay frère bi dee ci hôpitaux yi ñu taxaw di leen seetaan dootuñu ko nangooti ça c'est une promesse que je vous